alors tey Jules maa ngi lay nuyu. ngi lay fay. lancé nañu série bu bees Vautour dañuy laaj est-ce que yow tamit si nga bokk. Euh, non bokkuma malheureusement bokkuma ci série bi mais quand même euh, ñi ngi euh, rafetlu kii bi production bi parce que c'est une très belle production donc les acteurs sont au top et franchement on espère que vraiment cette série va nous éblouir quoi incha allah. yéene bi lan nga ko bon premier épisode bi j'ai bien aimé déjà ci côté décor donc côté histoire c'est vraiment quelque chose boo xam ne ñun moom la doon xaar donc moom la ñu soxla parce que gis nañ n'importe quelle façon n'importe quel thème ci fii ci dëkk bi tout le temps moom la ñuy évoquer donc suñ ñëwee tey ñu évoquer loo xam ne c'est en rapport ak notre culture xam nga notre société vraiment dañ koy dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu bu baax et j'ai bien aimé vraiment ce ce premier épisode quoi et les acteurs sont top macha yow nga bokk ci série bu am solo mœurs mu jeex euh, ni nga jeexee lu mu jeexee nag nga deesi ak yooyu noonu émouvoir ñu bëri say fans lan nga leen bon di leen wax ni que rek euh, affaire yi moom noonu la gis nga tout le temps nit moom boo nekkee ku bon moom deewu kañ rek ngay mujjee donc deewu kañe boobu moom la Jules César mujjee am na ñu mu neex comme am na ñu mu neexul donc euh, voilà c'est comme ça noonu la demee et franchement Mœurs a été benn expérience boo xam ne euh, c'est dafa dafa riche en fait pour man parce que Mœurs ci la ma nit ñi découvrir donc Mœurs ci laa amee ay opportunités et puis voilà donc looloo tax tey jii man ak Evenprod toujours on entretient de très bonnes relations man ak gars yeeg ñëpp vraiment parce que liggéey bi fii Jules César toll fii yëpp daanaka ginnaaw yàlla ñoom la ñu primé la nag prix bu am solo nga amee ko soti gi prix boobu suñu la dégg nga wax si mais def nga benn coup de gueule boo xam ne euh, lu am importance la pour acteurs yi. Mm. effectivement bon euh, Jules César a été primé ci soti gi comme meilleur espoir euh, africain euh, catégorie série TV mu nekk loo xam ne ma ciy sant yàlla bu baax donc di ci sant ñëpp. di sant ñi ci jàpp ñëpp xam nga mu nekk loo xam ne ndamu Sénégal la ndamu ndaw ñëpp la ndamu acteur yëpp la. donc jusque di di di ñaax rek sama mbokk acteurs yi ñun ñëpp ñu gën a góorgóorlu gën a ñafe parce que tey jii cinéma Sénégal ñu ñoo ko war a gën a développé en plus nous sommes des euh, euh, des vecteurs donc tey jii image Sénégal ñoo koy jaay donc xam nga moo tax war nañ ñu wormaal war nañ ñu respecter war nañ ñu jox cër parce que être acteur c'est pas donné à tout le monde et c'est quelque chose de très difficile. mais ne acteurs yi dañ leen doyalil fii ndax boobu am solo la ñeneen dëkk yi dañ koy màggal dañ koy dañuy féliciter seen effectivement bon nekk la loo xam ne à un moment donné xawoon na ma naqari tuuti parce que quand tu reçois un trophée boo xam ne voilà c'est amoo ci considération bien vrai que considération la ci man ak ñi ma ko jox mais dafa mel ni Sénégal valoriser wuñ ko donc c'est quelque chose boo xam ne euh, ñaawlu woon naa ko et puis voilà du ma ci blâmer kenn xëy na ku ci nekk rek tolluwaayam foofu la tolloon xam nga Euh, di wax rek ni que vraiment di lancer un, message peut-être à notre ministère de la culture xam nga ñu bàyyi xel bu baax a baax les acteurs du Sénégal parce que tey jii boo demee ay dëkk yu bari nga dem ay Côte d'Ivoire dem Bénin dem Gabon foo munti dem on va te parler des acteurs sénégalais donc c'est très important ñu bàyyi xel jox ñu suñu gëdd parce qu'on le mérite vraiment. impact après euh, mœurs lan la ñu mën a xaaraat gisaatuñ la de. bon actuellement waaw actuellement. je pense que maa ngi ci impact donc impact moom moo moom war a moom laay préparé xam na bientôt on va commencer les tournages incha allah pour la saison 2 pour le moment à part impact bon je ne suis pas je ne suis dans aucun projet dans aucun projet pour le moment.